mbokk internet yi ñuy topp ci seen chaîne Tactic TV dal leen jam seen émission du dëgg du yoon tey ñu demaloon leen Mbacké Mbacké nag bokk ci juróomi département yi gën a rëy ci Sénégal waaye tamit ku wax Mbacké sa xel dem ci Touba bu ñu sukkandikoo ci askan ba yeewoo ci boobale département lu toll ci fanweeri at mu ngi nii ñii di SDE ndox mi leen di jox mu jut ayib ndox la moo xamante ni saf na xorom te baaxul ci wér-gi-yaram loolu sax tax ba ak kuréel tuddee seen bopp association ànd soppi ndoxu Mbàkke nara xeex ngir jële fa ndox mu bon mile waa SDE di leen jox tem nekk ndox bu cher lool. bépp nit bu dëkk Mbàkke da fay facture SDE parce moom ngay utiliser pour say besoins domestiques ak yeneen wante aussi da nga jëndaat ci sa poche bopp ndox moo xam moom ngay utiliser pour ko naan. loolu nag ñu ngi dëkk Mbàkke ñëpp mu ngi dal seen kaw mu metti loolu nag dëgg yàlla ndax bu amee ñu ko mu ne lu ëpp ci population yi mënuñu ko ngir néew doon ñi nga xamante ni aussi amuñu doole yooyu dañuy utiliser dañuy obligé utiliser ndox moomu à leur risque et péril certes monsieur le préfet association ànd soqali ndoxu Mbàkke amul reconnaissance juridique mais boo xoolee benn émanation la à la base maanaam benn méthode la bu dëkk bépp yëgandoo ñu jógandoo mais am ñu ko porté ñooñu ko porté it wax dëgg yàlla loolu ñu yëg ba di ko porté moom la dëkk bépp yëg kon ku ci ñëwut ci sa xol ak sa yéene ak ci sa bëgg-bëgg yaa ngi dugg ci action bi nga xamante ni moom la association bi doon kon c'est au-delà de d'une association mais c'est l'émanation la base population ñu nit wax dëgg yàlla li ñu ci war waxtaan naa ak le préfet mooy bu ñuy jógee fii jaar nañ yow nga jóg jaar ne pour mën a trouver aussi ay solutions alternatives maa ngi nuyu bu baax le directeur général Charles Fall moo nga ma ko jotee sama nuyoo. ak ay remerciement aussi population Mbacké bi ci ci ñaari mbir ndax doog nañ fii ay jamono daaw daaw jéeg di jooy ndox biñ ko contacté mu renvoyé ma ci ministre ñu gisee ak moom wax dëgg yàlla mu ànd diri waa Dakar li ñuy ndox moo ëpp volume boobu moo ëpp waa askanu Mbacké li ñuy jël mais le problème ne se trouve pas là est-ce que vous imaginez yi ndox mi am ci askanu Mbacké donc bëggoon naa interpeller service d'hygiène aussi parce que vraiment yéen tamit seen rôle da ngeen na war a indi nag précision ci mbirum ndox mi parce que ñun bu ñuy wax ay affaire bactéries loolu 4 jours nga koy naan mu rey la 4 jours nga dee amul problème mais ndox moo xam ne dans 10 ans la lay toroxal fa la bala mu laa rey mélange la ba nga set lépp loo mën ni ko fajee ji d'abord parce que maladie yi mu lay jox du la bàyyi dërëb ñun. ngeen bàyyi woon ndox mi infecté am ay bactéries ñu naan ko de suite feebar traité soit ñu wér wala ñu dee dafa gën a yomb ci ñun ngeen ñuy jox ndox moo xam ne sa organe yi lay yàq d'abord avant mu lay nommé ku ci nekk consciencieusement rek ñun ñëpp ay doomi Sénégal bi te ñun dañoo am malaise on n'est pas là pour juger qui ce soit de dañoo am problème muy lan sama la sama jarbaat jóge na États-Unis waroon na tabaski say Mbàkke doomam elaata cinq ans juum dem naan ci rëbënët tabaski trois jours avant tabaski la delluwaat ni jaare boo xam ne dem nañ ba tiit ci moom kon yéen bu ngeen ñëwee dañu joxi discours yoo xam ni nee ngeen c'est pas la fois am ñu koy xeex kon malaise bi yàgg ngeen koo xam lii ngeen wax nii dafa grave parce que lii bu ko askanu Mbàkke déggee ni ndekete depuis toujours yi ngeen information ne ndoxu Mbàkke bi ngeen gaañ askanu Mbàkke ngeen leen koy facturer au même prix ak ndoxu Dakar bu leen xool affaire xaalis bi ci génn prix yi l'état tout ça non xool leen ñun mal-être bi ñu am mal-être bi ñu am demal ci suñ salle de bain bi mënatuñu am salle de bain bu baax j'ai les images mën naa leen ko wan ndox mi li muy yàq nañ leen waxante en tant que li ndox mi li yàq dafa pas ñuy xool ci affaire aspect économique wala beneen aspect bi mu doon mais nañ xool ndox mi boo demee hôpital envoyé nañ fi des médecins internes yoo xam ne seen enquête ci ndox mi kon ñun bu ñuy wax en tant que sénégalais man su ma xam ne day gaañ askan wala loosin du ma ko def. wax rek ci laay ñëw xam ni ndegam ñi ñoo xam ndox mi asamaan ñun jigéen ñi ñun liggéey ci ndox mi ñooy fóot ci ndox mi ñooy sangu ci ndox mi ñooy euh, togg ci ndox mi ñooy def lépp ci ndox mi. ndegam ñoom ñi ñoo ko xam asamaan ñëw ndox mi sonal nañu sonal a boo xam ni te mënuñu koo wax fenn bañ juddoo ba tey ñu ngi ci ndox te ndox mi mënut a te mënuñoo baax téye ñu rek lor ñu côté boo xool rek ndox mi dañoo lor sunu ku ku am 60 ans Mbàkke ku fi am su ans rek dootoo mën a dox feebar nga ndax ndox mi xale yu ndaw yi ñooy am ay boîte ndax ndox mi. jigéen ñi wérul ñi ku dem hôpital ñu tere la xorom ci saasi ni la bul naanati ci ndoxu robinet bu lekkati xorom ndax ndox mi mooy lor xale yi bu moor ne li mu am fii amul ci Sénégal fenn li ñuy ñàkk suñu bébé yi kenn amu ko ci Sénégal li ñuy ñàkk suñu jigéen ñi yi kenn amu ko ci Sénégal dañoo faj a faj docteur dañoo faj ba sonn nee na ñu xamuñu luy rey bébé yi xamuñu luy rey jigéen ñi ndoxum xorom bi moo leen di rey waaw liñ ciy naan ndax buñ nee duñ ci naan dañuy wax rek mais suñ doom yi moom la ñuy naan école yi ndoxu robinet yii lañ fa implanté moom la xale yépp di naan xanaa boo doonee mag nga ko dootul naan ñun ñii ci lañ daan naan ba doon mag léegi nag man ngaa jënd ndox moo mu neex moo naan mais ndox mu neex mais gën a tee bon xanaa suñ service yi sax dañoo war di dem ci teen yi boobu diñ ko xoolal mi ñuy naan ndox teen moo gën a tee bon ay feebar du deexa nekk te dañ koy naan c'est obligé ndax moo neex ci làmmiñ pour naan ko kon gii mu juddoo tëdd Tuubaa gii fàtte ko tam ndox mu neex njël ko am tu Mbàkke mun te nekk li maa ne jukkalee suñ Tuubaa du loolu ilaa Tuubaa bii ñu defar nii nii goudron bii ndox mee ko gën a prioritaire bokkuñu te dama leen yëgal yéen comme SONES dañu SONES état man su ma nee état dem naan Macky Sall Macky xool ba borom kër gu nekk gu nekk mi ko jox juróomi junni yaakaar def xolom yërmande nga jël problème bii su ko yëgoon comme ni ko yëgee ni ko yëgee yéen nii réglé woon na ba yàlla dafa def ñu bokk ci Macky mu ne ñëpp dañ ko ñëw ku nekk yaakaar ne soo waxee sa mbubb xottal muy ñi fi nekk nekk ci dëkk be soo ŋaayee na ko nangam sa boobu xoteeku. mais dañuy ñëw rek dëggal li muy wax xam ni fii ñun ñoo xam ni fii dëkku Serigne Touba la fii la gënee àdduna Cheikh Amadou Bamba fii la gënee àdduna loolu dafa am solo loolu dafa am lu muy tekki ci Mbàkke ci Sénégal dëkk bu Cheikh Amadou Bamba gënee àdduna. tëdd fii à 7 kilomètres amul lu dul ñu koy jagleel lu mel ni pendant 30 ans non nit ñi dañu sonn dañu damm dañu tay loolu muy dëgg ces discours là c'est des discours ñun dañu jël suñuy matukaay avant ñuy engagé lii ndax taabal ji bu ngeen xoolee xam ne ay nit ñu am fulla ñu am fayda ñu am ñam ñoo toog ci taabal ji du ñu ay bàyyi ma du ñu ay jaay nous avons une équipe technique. wax nañ ko ci mémorandum bi dañu engagé ay laboratoire ñu defal ñu suñuy étude ñu dépêché ay médecins sur place jël ay nit ñoo xam ne dañu tawat ndax ndox mi kon waxuñu ci waxuñu ci ngelaw li li ñuy def dañu ko teg ci xam-xam comme ni ngeen koy ni ngeen ñuy jéem a convaincre ci xam-xam ñun tamit li ñuy wax dañu ko teg ci kaw xam-xam moo waral daje bi nii rek la mën a demee foog ngeen bàyyi ñu wax li nekk ci ñun. lañ ca gisoon da ci ñun lañ ci gisoon parce que suñu métier la depuis 23 ans. ñii seen métier la depuis peut-être cinquante ans donc euh, dana doona jaaxal lool tey ngeen génne fi lu bees loo xam ne xamuñu ko waaye léegi effectivement société dafay développé la société civile est est est est active nit ñaa ngi gëstu lépp lu ñuy wax rek dañ koy teg ci ay scientifique donc génne ngeen yi ngeen xam ne euh, à travers beaucoup d'analyses yoo xam ne moom mooy màndarga ndox mi donc loolu amul leen luñ ciy discuter mën nañu d' accord parce que analyse yi ngeen ñu yi ngeen yi ngeen yi ngeen ñu envoyé ni daanaka dafa trouver les mêmes valeurs que ñun yu ñu yu ñu doon gis nga xam ne SONES mu ngi koy saytu aussi parce que SONES léeg-léeg ñu njëkk ci laboratoire laboratoire Pasteur wala keneen ña ko demal ci dëkk-dëkk yi bu tàggu kenn demal rek jël sa échantillon analysé maanaam loolu da leen di woon est ce que liggéey SDE jaar na yoon donc ñu ngi surveiller ndox mi SONES mi ngi koy surveiller Euh, am na ay service d'hygiène c'est leur mission régalienne aussi ñu ngi koy surveiller yéen tamit consommateurs yéen a ngi koy surveiller ñun ñëpp suñu àndee gis les mêmes choses ce qui veut dire foofu wax ji du nekkatu foofu wax ji dafay nekk dina léegi su dee identifier nañu problème ana solution yi ñooy lan je comprends je comprends que nit ñi fu ñu toll ñu xaaroon tey ñu ñëw ñu leen ah délai sàngam dinañ def nangam dinañ def nangam dañ def nangam je pense que bi ñu échangé xam ngeen ne loolu bu ci incité lañ ko waroon a xaar malheureusement loi rek la ñuy doxee loolu loi joxuñu prérogative boobu ki loi jox prérogative bi mi ngi toog wax na leen fan la état tollu ci projet amélioration qualité d'eau dans tout le bassin arachidier du Sénégal wax na leen fu mu yi kon fii la ñuy yam ak yéen seen émission du dëgg du yoon di leen dig daje ci beneen gox ak beneen askan